parce que fii la plupart ñu ñëpp ay ay ay ay ay musulman lañ moom sax bokkul ci musulman ça veut dire que moom chrétien la mais dimbali lislaam dimbali nitu nit nit doomu aadama te yàlla tax moom moo ko soxal moo tax mu di ko def saa su ne euh, moo tax nag ñu àndanteeg moom tey ñëw fii ci euh, fondation bu mag boobu nga xamante ni moom la ñuy wax Kun euh, Karina maanaam daal mooy Reen Karina moo noonu lañ koy waxee tey nag ñu ñëw fii ci Kër Massar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 moom la fi yàlla teg kon monsieur le maire yow tamit ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye daal di wax ni Karina mii lii mu jël daf ko indi te yàlla tax jox ko ay nit te yàlla tax mu ngi nekk 45 sacs de riz 25 kilos am na 5 cartons yoo xamante ni suukar la 25 kilos carton bu ne def na 25 kilos maanaam ay paquet 1 kilo ñoo fi nekk hmm. waa def na ci 25 am na tamit 8 cartons d'huile yoo xamante ni benn bu ne def na 5 euh, litres. benn carton bu doon def na quatre quatre bouteilles de cinq litres waaw muy vingt litres rek def na tam dem na tamit quatre cartons yoo xam si ne lii ay ay ay kii la euh, euh, cent corne bœuf la waaw cent corne bœuf am na tamit euh, li nga xamante ni deux cent le petits sachets de de de kii deux cent la parce que tamit deux cent deux yu yu vingt cinq grammes moom moo si nekk euh, mu jël ko nag àndandoo ko Allo Dakar ki nga xamante ne mooy Bouna di xaritam di doomu ndeyam di lépp àndanteek Jibril àndanteeg euh, Jibril Jibril waa Jibril Jibril waa moom tamit moom tamit li tax ñuy ñuy taxaw ci moom tuuti moom moo compté lépp mooy puis moom moo recensé affaire yi waxtaan ak moom ci information yi bien vrai que yow Bouna sa xarit la après sax la la kii mais moom lu jiitu loolu moom mi ngi doon mi ngi doon mi ngi doon coordonné moo coordonné yooyu yëpp moom tamit ñu ngi koy sant di gërëm parce que vraiment lii mooy taxawaay sa sa gox su amee benn jànkoon jànkoon bu ñu amee benn problème lépp loo ci mën a taxaw da nga koy taxaw waxuñu dëkk ci dëkk bi tekk ci dëkk bi moo am solo te moom loolu la def kon moom tamit ñu ngi koy sant bu baax parce que mi ngi ci wetu Karina lépp loo xam si ne lu baax la fii rek day woo Karina ni ko ba Karina mën a di ko gërëm kon niñ ko waxee rek euh, duñu sori léegi dañuy jox euh, kàddu gi monsieur le maire monsieur le maire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 ndax tey camp bi biñ koy teg dañoo dama jël sama directeur de cabinet pour respecter population bi respecter askan bi ma ne ko yow yaay génn mairie bi dem toog foofu gérer camp bi bi mu ñëwee mu teg fi toog kuy dugg si mu enregistré le nom prénom père de famille bi numéro téléphone quartier bi nga xam ne moom la jóge ñëw fii ñu dem ba mu yàgg ñu instauré fi benn infirmerie képp ku feebar dañ lay prendre en soin gratuitement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 bu la neexoon tey nga dem ne ah man kat ñii ay musulman la ñu naan xooloo loolu yow nit ki nga xool doomu adama bi la personne nga xam ne kii nit la comme yow nga koy dimbale tey yàlla kese tax te yàlla képp koo xam ne yaa ngi def lu baax si nitam yi parce que yàlla duñ ko gis ñu ko defal mais li ñuy defal yàlla si nit ñi lañ koy def soo defalee nit ku new doole defal nga yàlla boo defalee ku nekk ci problème defal nga yàlla yàlla na ku ko defal moom mu fay la moo gën a baax moo dàq fay